mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di faratal di déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom mooy docteur Cheikh Seck docteur Cheikh Seck nekk secretaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social waaye tamit nekk porte-parole de la fédération des syndicats de la santé F2S docteur Cheikh Seck ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM wante laata loolu sant la gërëm ci na nangu bi nga nangu uyu ci suñu invitation bi lee docteur Cheikh Seck dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. jërëjëf Fatou maa ngi lay nuyu di la ziar di ziar sa auditeur yi di rafetlu aussi invitation bi ñuy permettre aussi ñu mën a leeral askan wi li nga xam ni moo am ci secteur de la santé parce que ku nekk xam na ni wér-gu-yaram lu am solo la. te boo xoolee moom biir constitution sénégalaise sax dañ cee bind droit la c'est-à-dire bu nekk tey ki jiite war naa fexe ba yow nga mën a am wérgu yaram donc euh, mais nag pour wérgu yaram mën a am dafa am ay facteurs yu bëri yëpp dañ ko war a aligner maanaam euh, mooy conditions yi équipement yu doy infrastructure yu doy mais aussi ñay liggéey aussi seen xel mën a dal mhm. ñu nekk ci conditions yu baax donc yooyu mooy élément yoo xam ne mën nañ ko def nga may ma aussi mën nuyu mhm. en dor auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ak ñu nekk ci plateforme yëpp nga mhm. xam ne ñu ngi ñuy déglu di nuyu aussi euh, ñi nga xam ne ñoom laa bokkal fédération bi di wax ci seen tur ñu wóolu ma jox ma seen kaddu ci commencé ci camarade Jo Mandé mi nga xam ne mooy coordonnateur ak yeneen secrétaire générau yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci fédération bi toll ci juróom-ñaari secrétaire généraux euh, di nuyu aussi ki nga xam ne mooy Cheikh Diop di secrétaire général de la CNTSFC parce que mhm. sunu syndicat foofu la affilié wu mhm. di nuyu liggéeykatu kër docteur yi yëpp ak fu nu ti nekk ñu nekk ci hôpitaux yi ñu nekk centre de santé yi ñu nekk poste santé ak ñi nga xam ni ay travailleurs sociaux la nekk ci CPRS yi mais nekk aussi ci structure sanitaire yëpp ci nekk Sénégal wala structure euh, social yi mhm. donc maa ngi leen di nuyu leen gërëm d'accord euh, merci beaucoup docteur docteur dañuy tàmbalee waxtaan wi rek euh, ci li nga xamante ne moom moo soxal euh, Euh, hôpital Aristide Le Dantec euh, ci mois d'août bi ñu génn euh, waxoon nañ ne dañuy jaay benn parti bi ngir réfectionner ko beneen parti bi servir à d'autres choses ba moom moo waraloon sax ay malade ñu daal di leen transférer ci structure structure hospitalière yu fi nekk moo xal moo xam hôpital Abass ndaw moo xam principal wala moo xam hôpital Dalal Jàmm ba ci Touba sax am na ay malade yoo xamante ne daanaka yóbbu woon nañ la woon nañ leen fa tey jii nag août septembre ñu ngi dugg ci weeru octobre daanaka ak ñaari weer euh, boobu ba léegi tey lan nga ñu mën a wax ci situation bi nga xamante ne moom moo soxal hôpital Aristide Le Dantec ak euh, réfection bi nga xamante ne waaye autorités yi jëloon nañu dogal bu ni mel. waaw daf daf ñuy daf ñuy jox rek dëgg. ci inquiétude yu ñu amoon bi ñu jógee ñu ne dañuy réfectionner Dantec pour la première fois nga jóg nga ni da ngay defaral xam nga defar ak réfection lu baax la. Mm-hmm. mais mu jur safaanu la nga xam ni moo taxoon muy jóg. parce ñun alerté woon nañ dafa am loo xam ni même tey jii keroog maa wax sama benn xarit en mu ne am na benn hôpital boo xam ne ñu ngi koy réfectionné mais hôpital bu tëjuñ ñu ko c'est-à-dire bu ñu koy réfectionné sax par service la ñuy jël di dindi une partie transféré ñeneen ci beneen côté bi service yi nga xam ne amuñu mais génnewuñu maladie mais tey jii boo gisee te lii du mhm. xam nga wax naa ko keroog suñu point de presse bi ma ne leen Sénégal li fi metti moo di gouvernement bu ñëw nit ñi la ñuy gis mooy président de la République ou peut ministre yi nga xam ne fal am na ñoo xam ne bokkuñu ci benn gouvernement depuis plus de vingt organisé wala ay lobby la ñoom régime bu ñëw ñu ànd moom. te ñoom duñu nangu feeñ. cest à ñoom ñooy ñëw di créer ay marché ñoom ñooy uti ay nit ñu ñëw investir. Euh, Dantec nag dafa xam dafa am foo xam ni fu mu féete la cest à zone boobu zone la boo xam ne ku nekk xam ni suuf gi la muy jar sax seer na seeraay boo xam ne tey ji ñu bëri suuf gi la soxla woon donc situation Dantec bi du tey la commencé c'est depuis le président Ablaye Wade donc du ci président Macky Sall la commencé nit ñi bëggoon ko délocaliser lan njëkkoon wax leen koy def. Mm-hmm. taxoon ñu koy bugg a délocaliser parce que suuf si lan soxla woon moo taxoon li ñuy commencé d' abord bi ne dañuy délocaliser. Euh, nit ñi xaw a mer ñu daal di arrêté. Mm-hmm. mais xam nga euh, dañuy dañuy rey service c'est-à-dire tey jii buñ la mi ngi mel ni marché rek da ngay ay marché yoo xam ne buñ leen bëggee toxal nanguwul toxal nga gis marché yi chaque ñaari fa ñu ne marché bi taal nañ ko wala mi ngi tàkk ak affaire demoon foofu la ñu njëkk a commencé cest à daal di mu fa def investissement yu baax ba maternité bi délabré wu ba amatul woon sécurité pour ñi nga xam ni mooy ñi ñi ñi ëmboon wala ñu daan accoucher. Mm-hmm. finalement ñu ne léegi garaawul dañuy tëj maternité bi dañ koy réfectionné mais maternité bi tëj nañ ko lu toll ci fukki at ak ñaar. bu daan bi fukki at ak ak lu topp. te dañ ne dañ koy réfectionné mais boobu dañ doon dañ dañ délocaliser ñeneen ñu yóbbu leen Roi Baudouin boo gisee tey jii sax activité gynécologique ak obstétrique développé wu centre de santé hôpital Roi Baudouin mm-hmm. c'est parce que bi nu bi ñu tëjee Dantec fa lañ leen toxal ñenn ñu yóbbu leen IHS mooy polyclinique bu nekk Médina moo tax tey jii ñoom seen plateau technique sur le plan sur ce plan bien que centre de santé la woon euh, baax na baaxaay boo xam ni parce que professeur yu bëri fa lañ leen yóbbu woon mm-hmm. donc ñu toog pendant dix ans ñenn ñi nekk fii polyclinique xam nga ñu jël ay yeneen i service aussi di leen rey lu dem ni ay ORL après bi ne bi ne léegi am nañ espace fan ñu ne léegi nan nan délocaliser yenn service boo gisee espace ah, fan service pneumo rek moo fa nekkoon ak service maladie infectieuse donc mhm. dafa bëri woon ay espace euh, à part les hôpitaux de Malte ak euh, Albert Royer mhm. jëluñ leen espace mhm. donc gis ngeen ni Fann am na ORL gis nga ORL bi nekk Fann mhm. Dantec la nekkoon ñu délocaliser ko donc plan bu nu tegoon la di délocaliser service yi ba xam ne benn service dootu fa des mhm. su ko defee ñu toog comme ni def stade Assane Diouf ñu jël terrain bi jaay ko mhm. loolu moo doon plan bi nu teg donc plan boobu le président Macky Sall fi ko fekk mais xam nga nit soo soo gisee président mu am ambition bëgg liggéey xam nga boo ko proposé leen rek c'est-à-dire boo li nga da nga koy solol mbubb xam nga tey jii trompé la du la wax li nga xam ne moom mooy yoon li mu bëgg donc ñooñu bi ñu bi ñu ñëwee ñëw nañ gëm loo ni dañ koy jàppale pour liggéey alors que tel n'était pas du tout le cas suuf si lañ soxla woon parce que man mënuma concevoir nga nekk dans un pays du benn Sénégal même ñun ñi nga xam ne ay fonctionnaire lañ tey jii bu ñu bëggee tabax suñu kër suñu salaire lañ ko mën a tabaxee dañuy yóbbu banque bi suñu bulletin de salaire mu am garantie mu lebal ñu xaalis pendant dix ans donc état mënul am problème ba ñakk xaalis di xalaat ni moom pétrole dina ko am ak gaz fii ak fii ak ñaata at fii euh, ñetti at ay milliards ba pare mënuloo am trente milliards yoo tabax yoo yoo complété pour tabax pour tabax un hôpital day poser problème donc ñun dañu gis ni derrière li ci xew moo di pour bëgg jël suufu Dantec jaay ko moo tax ñu ne montage financier boobu dañuy def montage bi mais ñun bu ñu waxoon sax ñu ñuy def montage financier bi mm-hmm. tey gis nga fi ñaata clinique am na ñoo xam ne sax IRM sax jënd nañ ko. Mm. un milliard lay jar. Mm. c'est-à-dire un privé. Euh, ubbi clinique am am scanner am ubbi jënd IRM. donc c' est parce que am na garantie ci banque ba mu lebal ko xaalis parce que tey jii activité hôpital day dugal xaalis nit ñëpp bëgg a faju boo demee clinique day cher pourquoi ki dugal ki jël risque dugal un milliard pertul donc tey jii bu bu indi woon plan boo xam ne hmm, wax ne Dantec li bëgg ñu defal ko benn business plan boo xam ne Dantec dina mën a rembourser lan fa tabaxee sans pour autant ñu jaay suuf. Mm-hmm. loolu ñun ñi nga xam ne sax nekkuñu ci yeneen sax mën nañ ko mën nañ def montage boobu. Mm-hmm. mais pour pourquoi ñu bëgg coûte que coûte jaay trois hectares yi. Mm-hmm. alors que ça c'est un patrimoine te ay taxes dafa wax ne loo xam ne ci patrimoine la bokk. même boo ko buggee jaay da nga war a dem assemblée nationale ba pare ñu valider ko parce que lu askan wi moom kenn nit mënu koo jël di ko jaay. Mhm. moo tax précipitation yi am ministère la santé muy Diouf Sarr mi fi nekkoon muy euh, ki fi nekk léegi di xemes ñoom ñëpp kenn xamu ci sax nan la demee. parce que mhm. affaire bi li la koy wan. Mhm. mooy bi affaire bi amee coow lu jëpp gars yi ne bon problème financement xam nga dañ ne fi tey marché boo koy boo mënoo tabax fi wala nga def leen loo xam ne ci affaire état la. te jaarul ci procédure de passation des de marché. marché bi comme niñ ko defee baaxul dañ ko dénoncé gars yi dem au niveau de l' agence de régulation des marchés publics marché bu 92 milliards la woon mais structure boobu dafa ni niñ ko niñ ko monté dara baaxu ci mais su fekkoon ni dëkku yoon la dañ ko war a annuler n' est ce pas. Mm-hmm. waaw mais kan moo wañ loxo <laughs> agence de régulation de marchés publics c' est pas le ministère de la santé c' est depuis la présidence. Mm-hmm. mais ñan ñoo am puissance boobu. qui insiste à ce que aujourd'hui ñu jaay ñu jaay ñu jaay une partie bon c'est vrai que jusqu'à présent ñu ngi naan jaayaguñ ko mais loolu c'est une façon de parler rek man du ma man li may ragal moo di séddee nañ ko bu yàgg mais nag il faut savoir que c'est ñaareel bi li lay woon ni suuf si rek lañ soxla mooy ni ñu génnee maladie maladie yëpp jël nañ leen génne lañ ci condition yoo xam ni teguñu fenn humainement ça ne devrait pas être fait. Mm-hmm. même ñun service bu ñu koy tëj nii même ñun ay période bu ñu bëggee arrêté sax suñuy malade. malade yi nga xam ne jot nañ jël ba pare ba six mois ñoom la ñuy continuer ñeneen ñu nar ñëw ñu bees du leen utal rendez vous. nga mën a toogee nga utal ay rendez vous malade alors que yow wóor na ni dans dans dans un mois da nga war a tëj. waaw su fekkoon ni par exemple depuis six mois nee nañ arrêté nañ rendez vous malade bu ñëwee daan teg dootuñu la jox rendez donc balaa six mois malade defa nekkoon dinañ génn dinañ tane ba wér parce que c' est très rare gis ay malaat yoo xam ne dañ toog six mois ci ci benn structure. à moins que peut-être muy maladie chronique te soxla duñ fa hospitalisé c'est-à-dire c'est c'est des maladies yoo xam ne def seen cure comme ay chimio wala ay hémodialyse comprendre parce que ñooñu dañuy ñëw mais ñooñu mën nga trouver des conditions yoo xam ni dans les six mois di nga leen benn cadre boo xam ne da leen mën a transférer mais tel n'a pas été le cas d'ailleurs même ñooñu ñoo gën a souffrir ci situation Dantec parce que ñeneen ñi bu dee yeneen feebar yi mën nañ dem bu dee trauma orthopédie mën nga dem CTO wala feneen mhm. wala nga dem ci clinique mais bu dee par exemple ñi am cancer surtout ñi am cancer ñoom ñoo gën a sonn heureusement sax ñoom bi ñuy daaneel affaire bi daaneeloon woon service boobu. Mhm. bi ñu ko tëjee yàggul matul sax même un mois malgré yi mhm. ñu daaneel yeneen service yi. Mhm. mais seen problème parce que boobu amuñu woon fu leen yóbbu malgré leen wax. ñi ci des ñu yóbbu leen daan tey ñeneen ñi ne Touba mais ñi nga xam ne ñoom la ñu yóbbu leen fële dalal jàmm mais ñi nga xam ne ñu yóbbu woon dalal jàmm. mais sonn gi ñu sonn métti na méttiwaay boo xam ni doy na waar man du ma toog deux jours wala ñaar jours yoo xam nit woowuñu premier jour lu leen wax bu ñu ñëwee waa dalal jàmm non seulement danoo yokk tarif yi ku nekk xam nañ ci structure yooyu seen tarif yemul ak Dantec parce que Dantec bu ñu waxte dëgg hôpitalu néew non gi doole la woon uh-huh. sérieusement parce que fee loo fay fay cent quatre-vingt mille fii boo ñëwee trois cent mille ngay fay ci yeneen ay dalal jàmm wala yeneen hôpitaux yu mel ni ay bokkuñu donc man Dantec ñu amul doole ñoo fay ñëw mais su fekkoon ni sax loolu sax garaawul su fekkoon lu mu seer seer mais na accessible mais am na ci ñoo xam dañuy ñëw ñu ne leen ah en priorité dañuy faj sunu malaat ba pare. ay malade yi daan fajoo waaw. Mhm. c'est dangereux. koo xam ne tey jii da nga am cure boo war a def mu war a wàññi sa sa sa dose cellule cancéreuse bi pour ñu mën la opérer dindi ko mhm. nga nar toogaat cellules yooyu mën a waat. Mhm. te lu nekk xaj na yooyu mooy situation yoo xam ne maladie ñu ngi koy dund ñeneen ñu ngi koy dund mais sawru personnel bi aussi lu garaaw la. tey jii tool nañ ci juróom-ñeent téeméer yoo xam ne ñoom ñëpp kenn mënu la wax la mooy sa sor parce que bu dee fonctionnaire la bu la affecté daan tek mën xëy wala nga nekk universitaire mën nañ la affecté feneen nga dem man fii ma nekk nii maa ngi Ojib avant nekkoon na Tamba nekkoon naa feneen ëllëg bu Ojib tëjee tamit mën nañ ma affecté Pikine wala ñu affecté ma feneen. Mhm. mais ki nga xam ne hôpital moo ko moo ko moo ko recruter. xam nga amul benn convention bu officielle entre l'hôpital et les autres parce que loolu li ko indi mooy au début <clears throat> dañ ne woon pour harmoniser nañu si nañu signer statut du personnel. Mm-hmm. mu nekk une fonction publique comme ni fonction publique locale amee ni fonction publique amee pour ñun mu am fonction publique hospitalière bu amoon fonction publique hospitalière di nga mën a am sañ-sañ jëlee nit daan teg affecté ko faan wala feneen. Mm-hmm. mais loolu signé nañ ko depuis presque léegi moo war a ay cinq ans six ans mais mënuñu ko appliquer. Mm-hmm. loolu moo indi jafe-jafe personnel u parce que Dantec finalement c' est des fa nekk ñëpp ñuy contractuels c' est des agents de l'hôpital de loolu moo indi jafe-jafe tool toll nañ ci prestataire rek juróomi téeméer ñeneen ñi toll nañ ci ñeenti téeméer contractuel mu nekk neuf cent personnes. Euh, pourtant euh, ci ay jamono newoon nañ ne c'est vrai que redéploiement personnel hôpital Aristide Le Dantec euh, ba ñu joxe xibaar bi amoon na ay jafe-jafe ndax personnel bi sax ku nekk mu ngi doon wax jotuñu notification jotuñu dara mais quelques jours après dañu ne réhabili réhabilité nañ leen ku nekk ci ñoom war nga. am nga fa am nga fu nga xamante ne foofu nga war a dem mais mu mel ni ba léegi problème mu personnel hôpital Aristide Le Dantec que ni nga ko war a gérer gérer wu. gérer wu commune lu dëgg mënul nekk dafa am loo xam ne dès le départ ñu nee naa leen mënul nekk c'est pas possible amul benn lien link. Mm-hmm. bu am parce que les établissements publics de santé sont des structures autonomes. ça c'est de un bien que service par parapublic la. mais en même temps aussi yow agent wu fenn nga man mën nga maa affecté agent day fekk man ma soxla agent boobu benn en même temps agent boo ko affecté charge supplémentaire lay doon ci structure ba mu jëm ça veut dire tey jii boo demee hôpital bi ma nekk nii li fi nekk ci agent yi fi liggéey rek toll nañ ci junni mais li ñu nekk ay fonctionnaire nga xam ne état moo leen fay deux cent soixante dix huit lañu matuñu trois cent alors que yow état lu mu lay jox comme subvention suñu budget fii neuf milliards la sur les neuf milliards état un cinq cent lay joxe ça veut dire que yow sept milliards cinq cent yëpp yaa hôpital moo koy dem uti. Mm-hmm. te état mooy wañ loxoom ne ko ku am six soixante ans du fay xale bu am zéro cinq ans du fay waaw su ma mënee am fukki malaat yoo xam ne ñoom dañu waroon fay juróom-ñaar yi fayuñu bu yàggee est-ce que dinaa mën a recouvrer samay recette pour mën a fay ñooñu seeni i salaire. Mm-hmm. waaw donc olof dafa ni ku sa euh, sur euh, matul. mënoo booti gamb xaw ma nag yéen xale yi waru leen xam loolu <laughs> c'est-à-dire bu gàttee gamb mooy genre leget yooyu nga xam ni dafay rond xam nga boo ko boo ko defee sa diggu ginnaaw boo tegee sër bi bi day day gën a aju day jël espace donc boo deful attention rek say awra day feeñ loolu la ñuy wax donc dañ ne ku sa sër matul bu dee sër dafa gàtt boo doo boot gamb parce que boo wootee gamb rek day sër bi day gën a donc quand tu n'as pas les balaa ngay laax jaay comme li olof di wax da ngay laax lekk ba pare mm-hmm. mais hôpitaux yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp problème yëpp mënoo leen indilaat yeneen problème ñu di ko gérer. Mhm. or ku yokk cere nag yokk ñeex. état moom moo jël décidé c'est-à-dire tey jii mënoo ñëw bi ñuy defar autoroute à péage au temps de Ablaye Wade lu njëkk a xalaat mooy les impacts boo demee foor man fi autoroute à péage bi jaar. am na ay ñu ma xamoon ñu dëkkoon foofu ci kër yooyu. voilà mais avant ñuy ñuy ñuy defal ñuy defal kër yooyu dañoo ñëw ci ñooñu ñu ak moom woo woo chef de quartier yi. ñu ne leen ñu waxtaan ñu ne leen nii lañ leen di fay ñu waxtaan ñoom ba nu d'accord ñu dédommagé leen ñoom ñëpp mayaat leen six mois ñu dem. avant ñuy daaneel seen i kër. daaneel ku ci nekk dem nga ci six mois yooyu dem jël sa dem tabaxi sa beneen kër dem dëkk fa. Mhm. mais est-ce que Dantec noonu la demee. c'est-à-dire on devrait euh, respecter d'abord. xool nu ñuy defee sooru maladie d' abord ndax da nga jàpp ne dañu def lu ñuy duppee la charrue avant les bœufs ba xam dañ ko def euh, ci précipitation sans pour autant tenir en compte euh, demande sociale bi ndax wax nga ko Dantec euh, yemul ak yeneen structure hospitalières yi ñi muy ñi muy gën a dalal mooy ñi nga xamante ne certainement seen doole taxu ko demee noonu ba moom moo waral tey ji bañ ko tëjee ba moom moo waral ñi nga xamante ne tëjee hôpital Aristide Le Dantec. yuuxu daanaka jubee na fu ne tey ji ndax da nga jàpp ne le fait que ñu tëj hôpital Aristide Le Dantec euh, war a procéder ak réfection bi euh, dañ ko précipité d'autant plus que wu ñu euh, moo xam passation de marché yi ak redéploiement personnel bi waaye tamit redéploiement yenn maladie yu ci mel ni ñi nga xamante ne ñoo am cancer wax nga ko sànq cancer i suuf mais les hémodialysés aussi tamit dafa mel ni affaire bi impacte ne leen bu baax docteur ah touché na leen xam nga xam nga le problème des hémodialysés d' abord mooy la plupart c' est à du sax ñi nga xam ne am nañ lal ñooñu am nañ chance mhm. mais tey su ma leen am na presque juróom benn téeméeri nit yoo xam ne ku ci nekk tey ji am nga insuffisance rénale ñu war la dialyser te mënoo am place c' est lay def ci lis nga toog di xaar te xam nga liste boobu maara day taale xam nga kañ ngay am chance pour ñu pour ñu boole mooy kun doon dialyser faatu tu vois est ce ça peut prendre des mois. non non tu n'es même pas sûr déggoo li ma la wax c'est-à-dire que je remplace quelqu'un boo xam ni. dafa faatu c'est dangereux mu tax on repose le débat sur loolu dafa war nekk sujet parce que incident rénal jax mu bëri temps yëpp li ko waral lenn rek la du lenn gis nga aspirine wala paracétamol xam nga day faj métitu bopp wala métitu métitu bu mu mënti doon te naan la ñaar ci naan ci ñaari comprimer yu cinq cent milligrammes mais boo jëloon dix comprimé mu nekk tooke ci yow waa nga gis nit koo xam ne tey jii dañ koy jox télé jox ko micro mu taxaw mu ne ma man maay maay maay diw yor ay njaqam ñu wane ko télé. kay seetaan defe nañ loolu day faj da koy jël di ko naan amul controler wuñu dosage bi. Mm-hmm. terrain mook moteuru oto ñooy mook moteuru oto yëpp boo ci defee huile bu bon mais da koy yàq donc incident rénal yu bëri c'est lié à ces décoctions là que nous prenons sans contrôle. Mm-hmm. sans compter les médicaments les faux médicaments qui entrent dans le pays. les médicaments de la rue. waaw ah, moom laa la bëgg a wax c'est ba baaxuñu. Mm-hmm. tey jii boo demee Touba ñu baal ma suma mbokk yi nekk foofu dans chaque coin da nga gis benn pharmacie garab yi fan lay jógee tey jii da ngay gis ay garab yu joge ay gambi gambi gis nga fi keroog ñu ne la am na ay sirop yu ñu fi indi mu rey ay nit. Mm-hmm. su fekkoon ne am na un laboratoire de contrôle wala ñuy contrôler médicament yu dugg xëy na loolu du fa am. justement sax ci boobu docteur benn mm-hmm. rek. Mm-hmm. démb maa ngi euh, benn information bi nga xamante ne au niveau euh, ci yi nga ne xamante ne dañu nekk foofu su Diourbel dañu interdire ay sirop yoo xamante ne ay sirop indien lañu. Euh, ki doon wax sax moom wax na ba ne eh, naru. waxu ko daf ko daf koy xaw a junj mais c'est juste pour dire que euh, médicaments yi daanaka dañuy wax rek ne ni ñu fiy duggee dafay dugg de manière frauduleuse mais am na yoon boo xamante ne amaana nga buñ hmm. euh, tey jii médicaments yooyu duñu dugg parce que ci information mi ngi xam le ne sirop yooyu nga xamante ne moom lañ jox tout tànk yi selon OMS hmm. am na ay xale yoo xamante ne daanaka euh, indi na leen ay jafe-jafe yu jéggi dayu te pourtant mi ngi circuler dama la autorité yi nekk fii Sénégal ñoo la gën a xam circuit bi y a des multimillionnaires ou yoo xam ni ci trafic médicament yooyu lañ nekk xam nga am na ay temps ñu jàpp benn Guinéen. valeur mhm. valeur médicament yi ñu jàppoon c'est mhm. presque un milliard. Mhm. le gars ku c'est le président de la république l'a gracié. je ne que dama lay wóolu yow man su la wóoloo jox la. Hmm? loo ma indil dama koy signé. parce que sama homme de confiance mais que indi ñu signé c'est parce que complice la woon ca ñu doon trafiqué. c'est-à-dire xamul tax suñu pays fi mu toll nii jeunes à tous les niveaux cest dire ñi nga xam ne njublang nañ ay bandi lan fu nekk am nañ fa sama benn Iran dafa doon tooñ mun na ma gis nga paren saa yi nga daan gis maire yi pourquoi ñu daan am facilité déconcertante di jaay terre yi terrain yi gis nga bu nu amee aménagé terre ba dagg ko pare en dehors des gens des impôts benn sëriñ bu mag la ñuy jël may ko ci terrain bi commandant gendarmerie bi ñu may ko terrain comprendre procureur bi ñu may ko terrain xam nga ñi nga xam ne ñëpp bu dossier bi éclaté woon dinañ ci am dañ dañ am gis nga fi affaire yi xawoon ay Sidi Tobago tey ji ah. lan moo xew Géejawaay bande des filao daggate nañ foofu yëpp mhm. yan cité lañ fa def cité des impôts et domaines et cité des magistrats <laughs> ça veut dire que ñi nga xam ne tey jii ñoo nekk impôts et domaines ñoo xam ne ñoom ñooy contrôler ndax li jaar neen wala yam ñoom ñoo fa nag gisee waaw est ce on on va cest dire loolu moo am fépp pour ces raisons que ça devient parce que on est en train de tuer l'administration on est en train de prendre les les politiques ñu ñëw ñëw infiltrer di ko gérer et si on veut on veut ko jooy au temps Ablaye Wade amul woon état donc le président Macky Sall bu mu ñëwee loolu la ñuy wax patrie avant parti. Mhm. mais mais c'est pire que euh, li ñu gis c'est-à-dire ñi nga xam ne ñun ñoo suñu doon des pires produits de l'administration parce que administration bu njëkk mënoo ci dugg même boo amee sa diplôme d'état tu concours un concours mm-hmm. non non dama lay wax très sélectif a lay wax à tous les niveaux nag secteurs boo dem c'est sélection moo tax un fonctionnaire musul am complexe vis vis même yow mu loo nekk nekk patron boo ko bëggee def loo xam ne du intérêt réew mi wala du intérêt structure bi daf naan la defuma ko non mën na waaw su fekkee ne yow poste bi la fee ñu ne la directeur de tel Hmm? mu wóor ne ni yow politique moo tax ñu teg la fa ah c'est sûr que ni ci loolu ngay doxee te bu nu buggee développer dëkk bi scandale yi ngay dégg yëpp leen loolu rek la c'est lié à ça il mhm. faudra que loolu ñu mën ci delluwaat ci orthodoxie boobu pour mën ko rek mhm. euh, docteur Cheikh Seck mënuñu tëj li nga xamante ne moom mooy situation bi ñu nemmeeku ci hôpital Aristide Le Dantec te waxuñu euh, ci arrestation yi ci di Abdoulaye Dione mu nekk coordonnateur euh, du collectif pour arrestation bi dañu jàpp ne eh, daf ko def eh, dafa doon yëkkati ay kàddu yoo xamante ne dañu jàpp ne ay fausse nouvelle la daal di koy jagleel benn commandon en exercice ñu fàttali ne eh, dafa poste yenn yu ni mel ci à travers les réseaux sociaux bo moom moo waral tey ji nag ñu daal di koy nëb jant bi moom mii di Abdoulaye Dione tey ji rek euh, laata ñuy xuus ci naka ngeen procédé pour war ko venir en aide nan jàngatee arrestation kii di Abdoulaye Dione nga xamante ne boobu ba léegi mu ngi taxaw ci combat bi nga xamante ne moom moo soxal euh, réfection hôpital Aristide Le Dantec. waaw xam nga boo nee Ablaye Dione rek defe naa ni moom mooy ki nga xam ne moom moo nekkoon ci këru. Mhm. lutte contre euh, pour pour situation bi ma la décliné nekk ci l'hôpital Dantec. defe naa lim ci investir ñun ñi nga xam ne sax ñun ñooy njiitam ci secteur euh, ci syndicat bi au niveau national. Mhm. defe naa ni defuñu ko ci. saa veut dire que nit ki xam ne ku am conviction la ku am gëm-gëm la te xam ne risque yi mu doon jël mais loolu amour la par rapport à son pays mm-hmm. et il ne le faisait pas uniquement pour les travailleurs de la santé mais pour tout le système socio-sanitaire xëy na nag am na loo xam ne man du ma ko du ma ko défendre du ma ko favoriser leen li may préciser moo di du lu mu wax général wala lu mu wax keneen déedéet du kàddu dafa am ku nekk ñun ñëpp am nañ statut mm-hmm. chaque jour surtout yéen jigéen yi ngeen kucc kuccal ba mun na daal def seen benn seen benn affaire daal daal def seen statut. Mhm. ça arrive aussi que ñun ñu toog ñu am suñu benn message bu ñu laajee def ko suñu statut bon comme tout tout bon sénégalais. Mhm. il la vie que am na ay euh, lu mu capturé daal koy def statut du moom moo ko créé bon c'est vrai que mënuma ci delluwaat xëj na o oh, am na koo xam ni lamu ko wax neexul. mais ñun on pas du nu favoriser lool. mais pour man njuumte la. Mm-hmm. njuumte la te jour bi ñu ko wooyee li mu njëkk a wax loolu la njëkk a wax. donc il a il a il loolu waru ko def. moo tax déggoo ñu bëcc ba tey même bi affaire bi déparé ñun am nañ ci suñu xalaatu bopp mais c'est pas ça qui important. on l'a mais ñun dañ ne nit ak même bu reyoon doomu aadama dafa am yoon lu mu ko teg. Mm-hmm. na jaare la yoon ba yoon egg mais bu ñu essayé profito ci situation boobu pour régler yeneen compte donc ñun suñu combat foofu la nekk. Mhm. téye nañ ko fa gendarmerie retour de parquet plusieurs fois d' abord li posé problème mooy bu njëkk dañ ni dafa offensé le général. Mm-hmm. mais dama ni fii sénégalais même le président de la république c' est un la république. or boo demee ci la déclaration universelle des droits de l'homme nga dem suñu constitution article premier daf la wax ni sénégalais yëpp i sont nés libres et et tout le monde la loi elle est impersonnelle. donc ñun ñëpp ñooy yem ci genre. Mm-hmm. yow sénégalais nga man sénégalais suma la too ah yow nii gis ñu benn plainte boo xam ni en tout cas ci lu suñu conseil avocat yi wax bu général bi def ni de la police. Mm-hmm. donc nan nga mën a tëbee nit nga koy enquêter du ko jàpp te amul kenn ku plainte. Mm-hmm. loolu mooy premier des choses su fekkoon ni général bi moo porté plainte laa la wax de. su fekkoon ne waaw su fekkoon ni sax moo porté plainte ce serait très grave que la gendarmerie se saisisse du dossier au point de vue de la loi on ne pas être juge et partie. munoo plainte parce que. le général a une autorité sur ses subalternes. on connaît ce que c'est l'armée c'est pas comme le civil où je suis. non non non waxuma sax cest dire ay ordre la ñuy liggéeyee. Mm. dire tey jii général bu buggee dossier c'est comme tu parles du ministère de la justice par rapport au procureur. aujourd'hui procureur bu doon poursuivre si le ministre de la justice lui dit arrêtez la poursuite da arrêter donc la gendarmerie ne devrait même pas mener l'enquête foofu la njëkk yi fi njëkk a parce que nee na gendarmerie lan tooñ mais mën na ma tooñ man man may enquête pour wala la juger est-ce que dinaa la yërëm est-ce que dinaa ko jaarale ci yoon foofu la yëf yi njëkk loolu la njëkk a dénoncé mais ñu ne garaawul pour ñun quel que soit alpha le procureur c'est partie nan fexe bu procureur pare ay yëfam ñu joxe ko mais xam nga tungu ne du teew ñuy nataal lu ne fàng est-ce que dinañ ko jeex gis nañ fi ay nit nit taxaw ne fii dóor jigéen dañ ne woon da ñu ne violer mais dóor ko ba gaañ ko mais on l'a jugé en flagrant délit lu gën a garaaw loolu ñeneen jàpp nañ leen fi barki démb on les a jugé en flagrant délit mm-hmm. mais pourquoi dans ce dossier de Ablaye loo xam ne lu nu posté la waxul waxul leen yow nga laaj ko mu wax la lan la ñuy enquêté ti bay naa dañuy def instruction bu nar a gudd parce que xam nañ luy instruction ah. Mm-hmm. ñu duñu xale fii dans ce pays là on te en prison te xamuñu yan condition te ñu ngi leen di avertir lépp lu ko dal ils seront seuls responsables ils l'ont mis à Rebeuss ils l'ont mis dans des conditions yoo xam ne ñun xamuñu ko. Mm-hmm. xamuñu ci lan lay lekk xamuñu ci lan lay naan xamuñu ci yan conditions lañ ko fa tëjee. et nous demandons au au au au au ministère de la justice nga xam ne mooy gérer ak ñi xam ne ñoo yor lépp loo xam ne ci dossier boobu nañu fexe ba integrité physique ak wér-gu-yaram bu ci bu ci dara dañ. Mm-hmm. xam nañu bu baax li ñuy waxe léegi nag ba tey jii mën nga concevoir depuis boobu tey mot un mois le juge d'instruction le juge du premier cabinet l'a pas entendu est-ce que yaakaar ngeen lu normal la. cest na sa res ñu déglu la. ça prend du temps. fu ñu ko teg yow bu nga wóoree ne yow amuloo temps <laughs> mettre ko sous contrôle judiciaire parce que kii du délinquant du bandit tu mais pas sous contrôle judiciaire tu le en prison ba pare yow nga ni léegi naa toog mais déglu ko sax d'abord parce que pour nga enquêter da ngay déglu nit ki ba pare mais boo dégluwul nit ki kay <laughs> ci lan ngay mën a amee orientation mu la donc bi ñu demee ba analyser fii fi jëm la nu comprendre que derrière cela lii prétexte la rek leneen li ci am moo di les gens ce qui est dangereux dans ce pays là et que nous tous nous sommes espionnés et quand l'État devient le plus grand espion. dama la état bu nekkee espion bi gën a ngand saa kenn nekkatul en sécurité parce que sama statut c'est privé ça veut dire que ñun ñëpp nous sommes sur écoute c'est-à-dire téléphone suñuy information yu ñu am yëpp ñoom ñu ngi koy am est-ce que loolu rôle état la. Mm-hmm. di surveiller nit ñi. c'est un autre débat qui va se poser. Mm-hmm. Ablaye Wade bu Ablaye Ablaye Jonn bu ñu ko jàppee c'est parce que depuis bu mu commencé wax ci Dantec wax naa ko benn jour. Mm-hmm. parce que non dama lay wax man dama ne avertir toujours je les ai man dund naa ko dama la bureau bi nga nekk nii man toog nañ fi pendant quatre ans ñu tewal ma caméra de surveillance et du fii la quoi. Mhm. ci kaw exactement lépp looy def say demat fooy dugg soit nañ la jéem a booleeg jigéen soit dinañ la jéem a corrompre wala ñu jéem en tout cas lu la mën a yàqee nañ la ko yàqee. Mhm. ils feront tout pour ça. donc nag xëy na am na loo xam ne aussi moo tax il faut que le wax naa ko je l'ai toujours dit il faut extrêmement prudent par rapport à ces gens donc ñun ñu ñu ñuy demandé leen rek la na ko juge bi déglu mm-hmm. est-ce que c'est trop demandé bu ko dégloo ba pare dina mën a permettre ñu xam ndax dinañ dinañ ko mën a libérer wala déet. Mm-hmm. wala ñu juger ko le plus rapidement. Mm-hmm. parce que jusqu'à présent moom innocence am c'est établi jusqu'à ce que ñu juger ko loolu la yoon wax. nañ ko àtte. Mm-hmm. d'accord euh, docteur wax nga ko euh, Abdoulaye Dione euh, nekk coordonnateur bu collectif pour la défense de l'hôpital Aristide Le depuis coow lu jóg il a porté ce combat à bras le corps défendre na ko fu nekk mais tey jii nag mu mel ni arrestation bi bu ma la déggee bu baax ndax da ngeen koy xaw a méngale ak lu ñuy duppee tentative d'intimidation ndax boobu ba léegi dawul benn yoon mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi wane boppam mu ngi jàppale ñi nga xamante ne vraiment certainement ñoom ñooy loru ci lu ni mel mais xam nga tentative d'intimidation xam nga ki ngay intimider mooy ki ci ragal non ñun juddoowunu ci ragal c'est-à-dire ñii ñii di xoolaate fii gis nga ba muy ñàng le 23 juin ñuy toog ñun fa nu egg ñoom egguñu fa woon. Mm-hmm. on n'était pas des politiciens mais c'est nous on était ay citoyens sénégalais la ñu woon gis ni pays bi mi ngi basculer et pourtant en 88 bi ñuy def année blanche nekk élève hmm? boobu Ablaye Wade ñun ñoo ko porté. porté wuñ koon parce que dañoo bokkoon PDS. Mm. mais dañoo amoon espoir ak yaakaar. de la même manière kon a porté le président Macky sal parce que dañoo am am espoir ak yaakaar li gën a bon na ci àdduna mooy nit am yaakaar ci yow ba nga dem ba tas yaakaar boobu baaxul donc ñun tolluwuñu fu ñuy ragale bu dee loolu moo leen moo leen ci jublu bu yeboo nañ ko teg de côté parce que xam nga tax ma la. xam nga nee naa la coowul ñoom ñoo ko doon gérer le collectif. Mhm. mais cette fois-ci c'est le syndicat qui pris en charge à partir de keroog ma wax. Mhm. pour leur montrer que ni bu fekkee ni loolu moo tax ñu faire taire même man buñ ma jàppoon man tëj ma prison du tere le combat là va continuer donc li leen di conseiller mooy ñu jël ko teg fële et ce n'est même pas dans leur intérêt xam nga tax ma ne dans leur intérêt xam nga temps yëpp déggoon nañ calme kenn dégguloon wax. Mhm. mais fi mu toll noo noppiloo parce que chaque jour que Dieu fait dinañ ci ay scandale ci yu nu def ci par rapport à cette situation. Mm-hmm. bu nu teggiwul seen tànk du nu teggi suñu tànk ñun. Mm-hmm. notre devoir c'est d'informer l'opinion. ce pays-là n'appartient pas à des groupes de lobby. ce pays-là n'appartient pas a des groupes d'intérêt yoo xam ne yaakaar nañ ni dëkk bi ñoo ko moom leen neex la def te kenn du wax. Mm-hmm. on parlera. ils ne peuvent pas nous faire peur ni nous intimider. loolu moom il faut qu'il le comprenne xaw ma ku mu doon nag mais parce que ëmbaluñu sànqalu kenn mënuñu ëmbal kenn kersam mënul nekk te muy Ablaye ñu téye ko fa que muy keneen ñu téye ko fa ce combat là dinañ ñu wax trois hectares yi fa lañ ko jëmee les marché de gré à gré yi ñuy def nañ ko leeral sooru personnel bi nañ ko leeral lépp lépp loo xam ni jëm na ci transparence comme ni ñu koy demandé dinañ ko indi. te ci bëccëgu ndaro kàmm lañ koy defee. Mhm. loolu moom il faut ñoom ñu xam ko. Mhm. mu mel ni collectif bi kon ak nekk ci syndicat bi da taxaw temb euh, certainement pour que justice soit faite pour le bi kay ñoom ñoo def teg ci loi yi ak règlement yi yoon lii la wax mhm. yoon. mais Sénégal léegi c'est devenu benn règle da ngay xëy nit taxaw demander benn affaire njàpp la amul ay activistes yu fi jàpp ni yóbbu leen euh, Sébikotane qu'est-ce que les, act les ces activistes-là ont demandé Que l'on fasse uniquement de l'autopsie. Dans notre pays, est-ce que ces gens-là allaient errer Vous faites l'autopsie. S'il n'y a rien, vous mm-hmm. Mm-hmm. am lu ñuy ragal bopp xam nga ki aj du bugg ku xam naa bu baax li may wax. ku mm-hmm. aj du bugg ku teen. am na lu bëri nag nous on est dans ce pays xëy na dañu waxul parce que ça nous intéressé wuñu parce que loo wax dañu yaakaar da ngay politique comme politique wuñu mhm. dañu bàyyi politiciens yi ñu def loolu mhm. mais bu ñu obligé ñu dugg ci yeneen domaine am na lu bëri xam nañ ko mhm. dans ce pays là et qu'il fasse attention mooy li ma lay rek bu ñu jël nit ñi def leen ay dof duñu ay dof te ëpp ñu nit ñi mbokk ko ëpp mbokk nag mënoo ko jëw nan toog fi ñu toog rek xamuñu xamuñu xamuñu ñun fu ñu fu ñu jógee ak fu ñu nekk may niñ jàmm loolu mooy wax ji Euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission bii di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal gi nga xamante ne moom mooy docteur Cheikh Seck docteur Cheikh Seck nekk secretaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social waaye tamit nekk porte-parole de la fédération des syndicats euh, de la santé F2S xanaa rek docteur daal di xuus ci li nga xamante ne moom mooy di eh, eh, semaine bi ñu jëm mooy muy lundi 24 jàpp mercredi 26 ngeen fas yéene amal grève générale te pourtant wax nga ko Sonko ci sa biir wax ba léegi dañu xaw a nemmeeku ab tekk tekkaaral lan mooy expliquer ngeen euh, bëgg songaat ay mouvement d'humeur euh, lan moo xew ci diggante bi docteur Seck ah, mooy xam nga euh, dañ ni kàddu dafa am solo mhm. kàddu surtout lu état signature nag gën koo nekk lu gën a xam nga li nga signé sax mën nga wax ni sax ñu taxaw jàkkaarloo nga ne waxuma ko woon mais li nga signé mënoo mënoo mënoo ko bañ waaw nan nan respecté accord yu ñu signé lool mooy première des choses mais leen ñu gën a métti c'est au niveau du ministère la santé parce que commencé woon nañu avec l'actuel ministre bu muy doog a ñëw. Ah waaye parce que dafa am yoo xam ne boo xoolee plateforme bi point à incidence financière yi na fait même pas vingt cinq pour cent de la plateforme. donc presque plus de cent dix pour cent ou cent quinze pour cent yeneen ministères yi la yenn yi ça concerne le ministère de l'urbanisme parce que bi ñu nee joxuñu ne indemnité woon gouvernement daf ñu woon am na ay logements sociaux mooy takk xol paa mu ne cent mille logements ñu ne nañu waxtaan ñu ñuy indi suñuy kayit ñu mën a jox ñun ñi nga xam ne ñooy travail de la santé ku nekk sax mën ci am sa terrain ak condition yu ñu koy defee mais gis ngeen di ci xew. même ay promoteur privé lañ ko jox ñun suñuy papa yeeg suñu yaay bi ñu daan am ay kër Sicap lañ ko daan am ay huit mille lañ daan fay te jii gis nga Sicap lu muy liggéey wala wala dégg nga SN HLM c'est destiné aux fonctionnaires pourquoi ñuy rey ñooñu lépp ñu jox ko ay privé donc on réclame la présence du ministère de l'urbanisme dans ce point là pour problème logement sociaux yi le logement social mooy les cas sociaux lañ koy jox mais duñ ko jox ay VIP loolu mooy benn ministère moo de euh, fonction publique aussi gis nañ ni texte yu bëri dafa obsolète. dafa màgget. dafa màgget ay textes yoo xam ne yow mi sax juddoogoo woon ay yoo xam ne ay soixante dix neuf la ay textes yoo xam ne ay mille neuf cent soixante yu fonctionnaire yoo xam ne ay corps yoo xam ne amatul mais nañ ko adapté ak réalité yi am loolu état sax warul toog ñu koy ñu koy xaar naan ko ay le décret soixante dix sept huit cent quatre vingt sept décret yoo xam ne mille neuf cent soixante dix sept la woon ba tey. ce n'est plus adapté dañ ko changé leneen ça concerne le ministère de la santé mooy jëm ci statut euh, des des mooy mooy statut statut du personnel moo doon wax ci hôpitaux yi. Mhm. nañ ko appliqué buñ ko appliqué li dal li dal Dantec du leen dal da ngay redéployer personnel bi loolu mooy premier leneen ni mooy statut wu ñu tuddal statut ñi nga xam ne ñooy personnel communautaire bi. Mhm. boo demee ci poste de santé ñu ci bëri amuñu statut ña ngi fay liggéey loolu c' est pour la population c' est dangereux pour ñu fay liggéey. matron baa nga fa amul statut ambulancier baa nga fa amul statut dépositaire pharmacie ba maa nga maa nga fa amuñu statut ñu utal ñooñu statut ñu protéger le système de santé ñaateel bi moo di établissement public de santé yi muy hôpitaux yi wax naa la ko fi sànq depuis fukki at ak juróom. Mm-hmm. même montant bi ñuy joxe subvention moom la ñuy joxe cest boo demee Dantec lañ leen doon jox il y a de cela 15 ans état leen jàppale ba tey jii moom jàppale man tey jii su ma fekkee man célibataire la ma nekk sama kër di di di dundee 1000 francs su ma takkee jabar ba am ñaari doom wala ñetti doom est-ce que loolu laay continuer di dundee ma doon bu ma continuer loolu. dinaa soxlawaat bu fekkee ne ñaar téeméer laa laa doon dundee dinaa dundee léegi ay juróom-benn téeméer wala juróom-ñetti téeméer mais mën nga concevoir état hôpitaux yi la mu leen doon jox. moom la continuer di leen jox ba tey c'est anormal. Mm-hmm. alors que budget bi chaque année ñu ne la yokk na budget bi. jóge na dafay doubler wala muy tripler. Mm-hmm. ça veut dire lii yokk ci budget bi fan lay jëm mais jëmul ci population yi. Mm-hmm. ba pare yow nga ni léegi ku ñëw di faju du fay mais boo yoree sa boutique nekk ci quartier bi. ñu ñëw ñu la chaque weer ñi dëkk ci koñ bi yëpp dañuy ñëw di leb ceeb diwlin ba fin du mois fay ñu la est-ce que di nga renouveler sa stock loolu mooy xew yorol nañ hôpitaux yi vingt milliards. dette hospitalière ba léegi. oui non ñu ñu signé ci accord bi la bokk. Mhm. accord bi ñu signé ministre bi ne léegi xaalis bi disponible na c'était le 10 mais ñu ne avant le 20 mais dinañ ko dinañ dinañ fay hôpitaux yi. dinañ ko décaisser. wallaay mu ne dinañ saisir ministre développement communautaire mooy pël boobu defe naa moo koy jaay Samba Ndiobène Ka la woon. Mhm. xaw ma ndax je pense c'est lui qui est toujours ministre développement communautaire. xam nga lu def. Mhm. élection yi jub si. ñu jël quarante trois milliards ñu dañ koy séddale ménage yi. te loolu ci hôpitaux yi la waroon de mais jox paa yi ñii quatre vingt mille franc am na paa yoo xam ne jox nañu quatre vingt mille fekk tabaski bi jot mënuñu am xaru quatre vingt mille même buñ ci amee xaru quatre vingt mille. bi tabaski bi passé ñoom ñëpp dañoo feebar ñëw fi di faju mais ñu bi ñëwee ci hôpitaux yi laaj leen hôpitaux yu bëri arrêté nañ léegi plan saison kooku tegloo ko fitna. ça veut dire que pas bi nga xam ne mën na ñëw ñu faj ko mu dépensé presque deux cent mille yoo xam ne du ko faj du ko fay tey jii bu ñëwee hôpital day génne xaalis boppam est ce que da nga koo dimbali. c'est-à-dire nga jël nit nawet jot ñu jox la gerte nga dem tigade ko ko nga baal ma sama mbokk ngeen ni léegi est ce que bu récolté amee di nga récolté alors que kooku da ko war a gerte gi waroo koo togg da nga koy jël def ko ci suuf si dem bay ko mu jur gerte gu bëri moo tax politique gu xam nga dégg nga ñu ne la budget année bii budget social. Mhm. sociale. année sociale nee nañ budget bi presque am na deux mille milliards yoo xam ni si social. tout le demal nga xool ministère de la santé et de l' sociale xam nga dafa am lu ñuy wax direction action sociale. Mhm. demal xool ndax am yokk nañ seen budget. direction action sociale moo am service sociaux yi nekk fii démb rek nit ñëw na dama ni sama kii dañ ko war a opérer mu war a fay quatre cent mille mais dama bëgg. ba mu mënee jàppale ma dem service social ma ne ko boo demee service social tamit dërëm doo ko fa am c'est une coquille vide. que de nom. oui hôpitaux yi ñaata nit ñëw ñu indi leen leen opérer amuñu xaalis ñuy war mbokk mënu xam mu jox leen. tey jii ku war a da ngay jënd gant ku da ngay jënd bétadine tenue bi nga xam ne ki lay opérer moo koy sol yaa koy fay. malade bi. malade bee koy fay. waaw léegi ñu ne léegi ñu ngi def budget fan lañ koy dugal c'est-à-dire ak député yi loolu laay leen wax cest à man man naxaate bi dafa yomb quoi tey jii à l'assemblée il ne doit pas voter de budget du ministère de la santé tant que détails yooyu leeralul leen ko c'est-à-dire ligne budgétaire bu mu teg nu xool ban njëriñ la am askan wi nu fexe ba subvention hôpitaux yi nan rembourser bor yi d'abord plan Sésame ñaareel subvention bu fekkee ni vingt milliards rek lañ doon joxe budget bi lu muy rëy yëpp nekk ay deux cent cinquante vingt milliards rek lañ ciy joxe subvention jàppale hôpitaux yi vingt milliards kese pourquoi mënuñu ko yóbbu ba ba cent milliards bu boobaa yow di nga ñëw faju te doo fay tey jii boo xoolee ay këyit rek lañ ñuy jox muy bulletin rajo ordonnance yi ak big big sax beneen saa yi baaxul da ngay bind muy kale bu njëkk armoire la ñu doon jox jox ci garab bu malade bi ñëwee doo ko bindal da nga koy jox garab yi Mm-hmm. mais léegi bic la lay jot maladie même bu dee la santé est gratuite c'est-à-dire boo ñëwee consultation wala ñëw hôpital doo fay mais maladie laaj leen la moo leen a sonal. Mm-hmm. da ngay ñëw tey xëy si ñu bindal vingt cinq mille wala trente mille suba nga ñëwaat wala ngoon gi ñu bindalaat la. Mm-hmm. moo sonal maladie. la santé gratuite ma milliard. kii la rek. non non dama lay wax milliards yaa ngi fii ci secteur bi mais fan koy yóbbu moo dul foofu. faut qu'on mhm. yooyu yëpp nag bokk na ci revendication yu ni posé peut-être saa gars yi dañ naan dañuy posé revendication xaalis rek la laaj déedéet. Mhm. xëy na yéen ñiy diffuse xëy na xaalis bi di laaj moom ngeen teg seen rajo yeeg télévision. Mhm. mais loolu lépp li ma lay wax nii mi ngi ci biir plateforme revendicative bi ñu teg. te loolu bu ñu ko réglé parce que ñun bu bu malaat bi féexee rek am condition yu baax rek ñun sunu xel day dal. docteur Cheikh Seck dafa am lu ma la bëgg a laaj revendication c'est vrai eh, di nga wax ne état c'est une continuité mais le fait que à chaque fois ngeen entamé ay revendication un mois deux mois trois mois à un moment ñu changé waat ñi nga xamante ne ñoom ñoo yoroon dossier bi ndax yooyu aussi du nekk un éternel recommencement le temps que kooku di ñëw di imprégné woog yooyu ndax loolu aussi amul vraiment benn frein boo xamante ne dina ko apporter pour ngeen am satisfaction même bu dem cent pour cent mais ngeen am ci loo xamante ne di ngeen ne mun nañ def stand by suñu mouvement d'humeur euh, le temps que ñu may ko moom mu def euh, phase d'observation dëgg la day indi indi par exemple surtout dans le cadre du suivi. Hmm. par exemple saa di di nga dina nekk processus du ñu signé protocole. mais ñu dem ay commission technique comme li ñuy nii. xam nga xam nga boo laajee nit. il faut nga wax ko la mooy la faisabilité. parce que doo poser revendication kese rek ne naa lii quoi. Hmm, hmm. da xam ndax li ngay revendication mën na nekk. te bu mënee nekk ban yoon la war a jaar. ngeen di jaar voilà dañuy def processus boobu par exemple bu mu bëgg a egg nga gis mu am rupture. loolu loolu loolu aussi dafay nekk un frein mais dama ni. Euh, négociation yii li tax mu metti li tax mu metti mooy amuñu woon premier ministre. ok ça a pesé. a, a joué. boo gisee ma lay négociation sectorielle yi am ni à gauche et droite c'est parce que te jii da ngay dégg ministère ñu woo ministère développement communautaire li ko indi moo di moment bi nga xam ne ñun jën far euh, dëgg mën naa jën Farba Sarr boobu boobu moom fi nekk comme ministère de l'urbanisme. urbanisme. mais y avait le premier ministre Boun Abdallah Dionne qui coordonnait les négociations. entre le gouvernement et les syndicats du secteur de la santé c'était en mais boobu moom moo doon convoqué donc ministre bu mu convoqué da ngay ñëw mais sur négociation yi xam nga dafa amoon sectoriel dañ daan dem Mariama Sarr c'est vrai moo doon coordonné parce que c'est la fonction publique moom leen déposé woon préavis de grève mais pérén da ngay ñëw Ablaye Ablaye xam nga plateforme bi concerne ko mais mhm. mosul ñëw dans les mhm. am na benn jour a interpellé le ministre Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda Diallo ne man du ma premier mënuma imposer benn ministre mu ñëw toog fii. c'est vrai. xam nga ça pose un problème. mais tey jii nee nañ am nañ benn chance boo xam ni y a le le premier ministre Amadou Ba. Mhm. ñu koy féliciter pour sa nomination. Mhm. et j'ai vu que l'autre jour en conseil des ministres bi mujj e vu que def na communication ne rencontré na. Euh, le ministre de la santé ak ñi nga xam ne concerne dossier santé yëpp. Mm-hmm. pour ñu xool nan la ñuy xoolee pour le climat social. ça un signe positif. buñ ko amee moom premier ministre bu ne ko problème yi lan la mu ne problème yi ça concerne le milieu de l'urbanisme. Mm-hmm. boo dee Ablaye bu woowee Ablaye Sow. Abdoulaye Sow du du du du ko du ne ko damay dem stade dem seetaani match euh, seetaan match football wala damay damay toppatoo affaire coupe du monde. tout xam nga. Mhm. bu woowee ministre euh, de collectivités territoriales day ñëw bu woowee ministère de la santé day ñëw. Mhm. ñun chance boobu la amoon. Mhm. bu paree aussi moom mooy mettre en place son mécanisme de suivi cest ministre bu nekk bu leen ne sa dossier dina la jox délai. fil exactement ni la dans quinze jours amène-moi des conclusions de ce a conclu mais bu amul loolu loolu loolu moo nu dal ak Mariama Sarr. Mhm. daf ñuy wax dinaa leen recevoir ñu commencé discussion yi dans une semaine ou deux semaines duñu faale mu ngi war di campagne. Mhm. keneen aussi noonu lay def. mais bu amul kenn koo xam ne mooy taxaw di placer jour yi du dem heureusement ñun loolu la ñuy demander encore le premier ministre interpellé wuñu sax ministre de la santé wala ñeneen ci le premier ministre qu'on demande. Mhm. comme ni mu ko defee ñu koy rafetlu. na woo ministre yi ñu toog. ñu finaliser ce qu'on a finalisé jàmm ni ñooy nit ñi liggéey. Mhm. c'est tout ce qu'on demande. Mhm. et le ministre. Euh, mhm. le premier ministre. Amadou Euh, euh, le 24 du quatre au vingt 26 euh, ngeen di amal mouvement d'humeur xam naa ne bokk na ci du ñuy duppee rétention d'information bu weesoo loolu lan ngeen di def service minimum urgence yi ngeen di jël naka ngeen fas yéene procédé ci trois jours yooyu la nar na saf sàpp ci askan wi de trois jours du 24 au vingt 26 lundi ba mercredi ah docteur Cheikh Seck. Ah, mais mais du lu nu bëgg mais xam nga booy waxanteeg nii mu tànk xam lu la. mënoo mm-hmm. def lu gën a tuuti la nga defoon. Mm-hmm. te bu ñu poussé nit ñi à des extrêmes c'est pas bon gis nga boo demee yenn pays euh, du ñu xaar sax euh, nit ñi di poser ay plateforme revendicatives cest à foofu lañu war a toll tey jii c'est-à-dire ñiy xam lan mooy bëgg-bëgg ak soxla as soxla askan wi. Mm-hmm. ñu mën ci anticiper. c'est ça la force d'un gouvernement loolu moo amul lu ñu gënal mais on n'a pas le choix d'aller en grève. Mm-hmm. ñu prévoir nag. dañ def grève ñetti fan yi mais am nañ assemblée générale bu mag bu nu war a def hôpital principal le mardi à partir de douze heures voilà okay. hôpital principal dañ koy mhm. defee. parce que mhm. dañuy décentraliser pour les activités. Mhm. rétention d' information mi ngi continue mais tamit am na marche bu rëy bu ñu war a organiser ay booru soit le sept wala six la date n' est pas encore. début novembre. 3 novembre allah ñu ngi xool su fekkee ni am na dañu organiser marché bu mag. bu weesoo loolu dañ évaluer te bu dose bi doyul aussi ñu dolli. mais espérons que. yaakaar ne rek laata ngeen di dem seen bëgguñu ko dama ne la bu ñu sañoon bu ñu sañoon sax balaa lëndi balaa lëndi ñu wooñu xam nga léegi kese naxul béy. tout mais au moins am na loo xam ne day dalal xel. Mhm. te loolu dina permettre nit ñi mën a apaiser wu ñu mën a toog waxtaan demandé wu leen nan toog lu ci nekk ñun am nañ ay solution tey jii boo jëmee ci ci ci revendication bi c'est vrai état génne na xaalis joxe pour pour l'indemnité pour les indemnités mais ñun bu ñuy jox mos nga gis nga fii fonction publique ku ñu jox indemnité de logement cinquante mille francs fukki ne amul. pourquoi ñun on a accepté et pourtant depuis 1960 indépendance ren la ñuy doog a am indemnité de logement vous pensez que c'est normal police am nañ ko enseignant am nañ ko alors que ñun ñooy fanaan di yendal kan moo gën a am yelloo indemnité xam nga loolu c'est une injustice extraordinaire mais ñun ñi nga xam ne ñun nangu nañ ko gis nga ñen ñen ko doon bañal xam nga ñan la woon waa ministère des finances parce que ñoom ñoo nekkoon ci négociation yi mm-hmm. ànd ak Abdoulaye ministre des finances moo doon directeur du budget Amadou Moustapha mm-hmm. am na benn jour ñu am benn rencontre teeru bi mais cour magistral lañ defal ci difficulté yi état bi am mun la munu la mun xam nga. Mhm. di mu gëmloo ni yàlla guerre de l'Ukraine ñu ngi subventionné tel tel tel tel tel essence. matewul non matewul. mais gisee waxee loolu mais ñu ne ñu yéen du yéen dong fi nekk parce que fonctionnaire yi bëri wuñu par rapport ak seize millions d'habitants yi te ñoom dañuy jënd ceeb jënd diwlin ñu d'accord. bi gars yi waxee gars yi naan noo ñun ñu dañoo war a toll man leen non non garaawul loo xam ne mosuloo ko am nañ jàpp cinquante mille rek. xëy na fii ak un an ou deux ans mën na yokk mais ñu nangu ko te xam ne boo génnee fii cinquante mille mënoo ko am pantere dëgg loolu dëgg mais ka la wax loolu gëm loolu yëf yi dafa metti ni leen takk leen seen biir ñun ñu daa ko takk seen biir moom ministre boobu laa la wax actuellement l'actuel des finances c'est lui-même qui est revenu deux mois après ñu créer ñoom seen biir ñoom indemnité bu ñu wax indemnité de suggestion spéciale trois cent mille francs est-ce que yaakaar ngeen loolu lu honnête la cest wax ma yow dëkk bi dafa metti jëlal indemnité de logement cinquante mille nga nangu cinquante mille teguñu ci euh, ñaari weer nga créer sa bopp indemnité bu trois cent mille alors que yow yaa ngeeg fonds commun yi xaalis taxawaale yu des fii yëpp. Mm-hmm. dañ leen koy yóbbul ñoom finance chaque trois mois ñu koy séddoo. lan leen ëppale nit ñi du njàng bu dee njàng ñoo leen ëpp njàng bu dee nombre d'années rek ñoom ci lu ñuy jàng. ay calculer un plus un égale deux xaw ma trois trois xaw ma cinq xaw ma ñun on a été des scientifiques avant d'être de faire de travailler si nit doomu aadama ñoom la leen di wax pourquoi ñu leen fay xaalis yooyu seen fonds commun dañuy bañ a corrompre leen xalaatu ni ñun aussi bu ñu saabul mën nañoo perturber jaawale garab pour rey doomu aadama c'est quoi le Sénégal on les paye beaucoup ils immensément riches c'est la vérité. Mm-hmm. immensément riche pourquoi nous on doit être des pauvres ñoom ñu nekk des riches nan ñu wax rek ci lenn loo xam ne ëpp nañu ko. ñu ko ban base parce que ñoom ñooy décider cest à ñoom ñoo yor dépense bi di séddale nañ ñuy justifier les trois cent mille qui se sont octroyés ba pare ñun ñu ne cinquante mille la ñuy jox te cinquante mille yooyu genn wàll gi rek leen ko jox ñeneen ñu jox ñu leen ko. du ci travailleurs yi nekk ci hôpitaux surtout le personnel administratif du ci ñi nekk fonction publique nekk des personnels administratifs ou de soutien amuñu ko ñu ko fenn ñu indiwaat huit milliards ñu ne dañuy fay pour les hôpitaux ba pare xaa bi ñu boole ko fee ci kaw waa finance ne leen limite tur ay ñu ngi koy faj loolu lépp objectif bi xamal la bu ñuy fay léegi quatre milliards rek ñu séddale yeneen quatre milliards ñu delloo waat leen ko après ñoom ñu séddoo waat ko ñoom seen biir dans le cadre la gestion de ce pays-là c'est la où ça devient dangereux il faut ñun nag ci loolu la nekk fu mu toll nii dinañ leeral opinion yi comment ces la ki qui font le malin qui wax lu nit ñi alors que la ñuy dañuy def moo gën a grave loo gis ça qui n'est pas normal mënoo toog ni ñi def seen sacrifice tey jii man j'ai la chance je à Dakar saa yi ma wàccee sama kër laay fanaan yi y a des gens qui dans des régions très reculé. Mhm. dans des village yoo xam ne amuñ sax courant ndox pour ñu am ko sax dañuy gasan teen. ñu ne leen xale yi fa nekk yëpp da leen war a vacciner nga war a yor seen seen seen santé avec la population nga nekk jigéen nekk sage femme par exemple sage sax dina da ngay ñëw tous gis benn fii boo xam bi ñu ko marié yàggul mu dem foofu pendant six mois mu jóg tagul six mois jëkkër ji takkal ko benn wujju parce que bon góor ñëpp yemuñu. Mhm. parce que moom métier moo tax mu. mu gis mënul woon jóge ci village bi parce que am na ay objectif yu ñu ko fixé woon. Mhm. mais jëkkër ji subir na ay pression parents way yow dafa mel ne amuloo jabar xam nga nit ku nekk. nit la mhm, mhm. mais ce que ces gens là sont de subir au même moment ñooñu on les donne pas de voiture on les donne pas de carburant vous vous êtes des bureaucrates vous à Dakar. vous avez on vous donne des, des on vous donne du carburant vous avez vos fonds communs vous presque plus de cinq indemnités ou de primes vous et vous devenez méchant devant le fait qu'on doit donner à des personnes des indemnités est-ce que c'est honnête ñun iñaane wul leen pourquoi ñu iñaane te ku ci feebar ci ngay daw si ñoom fan ngay dem te ñu respecter pour quelle raison il faut qu'on arrête quand même il faut euh, et la justice dans ce pays mm-hmm. c'est pour ces raisons keroog dem naa congrès CUSEMS euh, e j'ai rappelé ce que Ablaye Ndoye disait toujours mm-hmm. toujours loolu lay wax l'équité e la justice fu mu amul rek day poser problème. déséquilibre. non dafay créer déséquilibre c'est dangereux notre administration est complètement déréglée et déséquilibrée. Mm -hmm. c'est vrai Abdoulaye Wade nañ comprendre mag la woon mais le président Macky Sall jeune la warul woon accepter cette situation bi dérégler notre administration là administration amatul compétence Abdou Sarr amatul compétition amatul profil. jóge nañ ci élection le président génn ne certains directeurs ou certains ministres n'ont pas mouillé le maillot man ma nekk fonctionnaire politique ma man leen mouillé le maillot pour kii ñu ne pour seen coalition wala seen parti politique ça veut dire que aujourd'hui c'est pas la compétence qui fait le mérite pour des postes moo tax exactement positif bi moom. exactement da ngay dindi ci exactement tuuti privilège. c'est mauvais. Mm -hmm. on doit léguer à nos enfants. parce que ñun suñu temps jeex na presque je peux dire. Mhm. ñun de saa nu yar suñu doom ci loolu lañ leen di yar mais xam nga boo yaree sa doom mu ñëw ci environnement xam fekk folo day sonn. day metti day metti xam nga bu la yaree ci gore nga fekk fii boo xam ne gars yi naan la mais yow. yow bëggoo dara yow da nga ñuy tardeel. fii lañ lay bàyyi danañ c'est pas bon. Mm-hmm. c'est pas bon malheureusement ñi waroon wax waxatuñu du ay marabu ki nañ fi ay temps sëñ ab bi ñuy nekk xale yooyu amatul. Mm-hmm. politique bu la neexee nga ànd ak kii ba mu neex la nga xëy benn jour bu sa intérêt yàqoo rek nga génn nga génne lépp loo xam ne bonoon na alors que yaa nga foo woon di ko gis te waxuloo ko mm-hmm. mais tant que ça t'arrange doo wax. nanu delloowaat orthodoxie administration man syndicaliste la mais sama liggéey bi may def nii du ma nangu kenn di ma ëppale sax lu may jël ci malat chaque jour maa ngi fii liggéey bien que damay kaas nag mais bëgg naa li tax may sama métier ma ma jàngi woon pour sa blouse bi dama koy exercer parce que loolu moo taxoon ma dugg biir administration formé naa ay boo yoo xam ne tey jii kenn rek maa ngi santeeg moom fii sànq te ko fi mu toll nii on a un déficit de personnel doo ñëw fii ils sont tous dans le service yi ma lay wax nii au minimum dañ fiy dugal dix millions par mois ça fait cent vingt millions te lañ ñuy jox ay pomat la wala leen du dara mais ku mën a liggéeyal état loolu boo demee dans le privé boo ko liggéeyee sa bopp doo nekk multimillionnaire mais c'est parce que xamu tax demuñu parce que lépp c'est le service public qui nous l'a donné maa ngi la koy wax sànq sama doomi chance bi nu am man aw ma ko mm-hmm. man mosuñu ma yóbbu jardin daara laa laa jaar jàngi alxuraan avant may dem école école primaire publique laa jànge ba fi ma toll nii musuma jàng ci privé et je me suis dit l'hôpital aussi c'est un hôpital public aujourd'hui li may ragal toujours wax naa ko barki temb mooy li dal enseignement dal la santé ñun ñëpp même jàngal man gis naa ay compagnie yoo xam ne ay enseignant la mais nanguñu dugal seen doom dans l'école publique te ay jàngalekat lañ ñu ngi jàngale ci école publique. benn jour dama ko wax benn copain mais loolu la ma wax mu ma maa ngi ci école publique mais du ma dugal sama doom ci bu ñu demee ba mu nekk ci biir santé boo gisee ñuy xeex parce que on veut que le service public soit attractif. Mm-hmm. on la chance nag la compétence est toujours la mm-hmm. tey jii demal dans le privé mënoo fa fekk lu ëpp compétence dans le service public. Mm-hmm. mais à la longue les gens sont en train de quitter si sur quitte ñëpp quitte ñëpp amuñu moyen dem clinique ñoom amuñu moyen. jël Maroc ñëpp amuñu moyen dem Paris. te ça. donc en sorte le service public ku fi mën a ñëw mën a faju am accessibilité géographique ak accessibilité financière. Mm-hmm. accessibilité géographique mooy man fu ma mënti dëkk ak lu mu lu mu sori sori lu mu ruqaruqi su ma feebaree rek en moins de cinq kilomètres dinaa gis benn dispensaire wala benn poste de santé boo xam ne naa fekk koo xam dina mën a faj. en même temps su ma demee ci structure boobu bu ma déggee nii en face CTO mu duggee ci biir hôpital bu nee ma dañ may opérer même bu dee quatre cent mille la dinaa am ku ma ko fayal wala man ma koo fay loolu mooy doxal réew le développement des gens pensent que ni mooy defaral ñu ay comme ay porte du millénaire wala wala monument de la renaissance lu baax la nag wala nga defal leen ay autoroute à ay terre fu nekk ñu ngi koy gas dëkk bi dëkk bi xat ba mel ni balaa ngay defar lool nit ki nit ki oto balaa mu koy day am paas sax oto amul paas car rapide lu ko intéressé d'abord mu lekk faju mm-hmm. nan régler loolu ba pare li ci des nag mën na mm-hmm. mais le développement c'est pas du ay bâtiment yu rafet wala lenn mm-hmm. bâtiment lu mu rafet rafet te ñu nekk ci biir bâtiment bi lekkuñu naanuñu amul sens loolu mooy euh, mu mel ni waxtaan bi am na solo docteur Cheikh Seck waaye eh, lu ñu coraloon ci waxtu bi yegg nañ ca waaw leen gërëm leen sant euh, waa réew mi ngeen permettre aussi ñu waxtaan askan bi parce que loolu mooy suñu rôle. Mm-hmm. Euh, leeral leen xamal leen mais aussi à travers askan bi mooy euh, fexe ba ñi nga xam ni parce que man pour man dama gëm ni xëñ na ñu nu jiite dafa am lu bëri loo xam dañ ko umpale te ñun ñoo leen war a leeral parce que am na yu bëri par exemple saa yi man toog naa ak le président de la république bi mbas bi doog a ñëw mu convoqué benn conseil présidentiel quand j'ai pris la parole lui-même. am na yu bëri ci biir séance tenante la joxe ay directives. Mm-hmm. est-ce que ña ko jege woon doon nañ ko informer ci lan ko war a par rapport à ça mm-hmm. xëy na xamu ko woon te jii lu mu wër te wër mooy situation Dantec ni ñu ko ko décrire woon ak li ñu ko waxoon bu xamoon ne réalité yi nii lay demee xëy na du autorisé autoriser yenn mm-hmm. kilifa aussi du ñëkk. cest boo juumee nangul ni da ngaa juum dans cette situation la daan lu ko gars yi wax mais na nangu ni. lan ko dafa juum. kilifa du ñu baal ma ci wax ji du du du du du foncer rek. Mm-hmm. c'est pas bon boo juumee nangul ni danga ngaa juum nga delluwaat gannaaw ñi nga àndul ay collaborateur mën na la juum la. nga nangul mm-hmm. da nga juum nga dindi ko nga changé. si la situation la daan teg waxuma la juum mën nañ continuer réflexion bi mais mën nañu corriger lu bëri. lu jëm ci maladie comme lu jëm ci personnel bi. et occasion boobu lañ koy ñaan moom ak premier ministre am na lu nu mën a corriger nañ ko corriger fii Sénégal ñun ñëpp dañuy liggéey ku nekk nag fa nga nekk ngay liggéey moom la yàlla def mu topp nekk ci bopp réew mi kit mënu ci dara mu neex ñu ak mu naqadim ñun ay agent serviteur lañ nous sommes de commune de l'État ku nekk nag sa war ba nga nekk na nga ca bay mu jox ñu les moyens ñu réussir C'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande. Et plus d'équité et de justice dans la fonction publique. Mm-hmm. Plus d'équité et de justice dans la fonction publique. Mm-hmm. c'est important. sant ko bu baax a baax gërëm ko moom docteur Cheikh Seck ma fàttali moo nekkoon suñu invité suñu émission bi di SOS santé euh, docteur Cheikh Seck nag nekk secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du social waaye tamit nekk porte-parole de la fédération des syndicats de la santé ñu gën ko xam ci F2S fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé SOS santé SOS santé Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité